nuyoo boobu nag ñu ngi koy teg ci loxol sëriñ Fallou Mbacke mii fi nekkal sëriñ Seex mu jottali ni ko njabootuk sëñ Modou Fati xari gépp ak waa kër sëñ Touba gépp ginnaaw loolu ñoo ngi sant yàlla nag bu baax bi mu nu booleeg sëriñ bi ba noppi sëriñ bi joxoñ nu ne lii laa bëgg te suñ defee ba noppi mu ne lii ngeen def day nii ngeen ko defee laa ko bëggee yal na nu yàlla yàggal ci loolu ak ñeen ko war a wax ak ñeen àndal liggéey boobu kon waa daayira bi ñi ngi sant kenn ku ci ne ci sa tur ak sa sant muy góor muy jigéen di la xamal ne kenn koo xam ne jëf képp moo taxoon nga war a jëkk taxaw fii di fi wax jigéen rek moo fi taxaw di wax loo fi gis nag ay wax rekk la ay wax rekk la nan gëm sëriñ bi rek te liggéeyal sëriñ Touba gëm sëriñ Cheikh mii nag bu baax wax ji du gudd li ci njëkk mooy nan ko daan defee rek suñ jógee fii bu subaa bu fi kenn jóge teel benn bagage di fi des yéen waa dayre bi moo ko ko war a wax suñ fi yóbboo bagage yëpp buñ jógee nañ dem kër sëñ Fallu nan fa def ca ndogu ya bàyyi faalub sëñ Modou Fati xari bi ginnaaw loolu suñu waree ba ca suba sa la ñuy jébbali liggéey bi ci kër sëñ Cheikh Mbacke ci kër sëñ Modou Fati xari ndem soob na yàlla gannaaw loolu nu gën di góor góor lu ci liggéey bii nga xam ne sëriñ Modou Fati xari moo ko fi bàyyi woon teg ko ci loxol sëriñ Cheikh lu ci bari mu teg ko ci sunu loxo ñu ngi koy sant ñu ngi ciy sant nag kenn ko àndal la ko tàmbaloon ca kadeerloo ba ci Samba Jaw ba fii Kunta Jóob yore lii nga xam ne moo wàllu waa Ndakaaru ñi buñ ci xool kenn buñ gis kenn liñ nga wax rekk nañ koy def asalaamaaleykum wa rahmatullah a'uuzu billahi min kàddu nuyoo mu di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. muy kàddu goo xam ne buñ ko déggee xam ne ci turu taalibe yi lañ koy waxe mu ngi leen di xamal ne taalibe yi day e, seen xel dal na bu baax ñu jël nuyoo boobu jaarale ko ci sëñ Fallou Mbacke moom sëñ Modou Faty Khary mu jàllale leen ko ci Cheikh mbakke ma Massamba moom moo jël liggéey boobu yóbbu ko ci Cheikh Seydil Muxtaar mi borom Touba. kon ñu xam ne nun taalibe yi am nañ sant yàlla bu baax di sant suñ kilifa yi nu àndal yàlla dogal nag e, ñu tànn nu daaru karim gi muy sunu dëkkuwaay daaru karim it di dëkk boo xam ne ci ndigalul boroom Touba la jóge ñëw ci Seex Ma Sàmba nu dëkk fi nag daanaan am sax loo xam ne dañ ko daan ñaan di ko wax waaye ndeke booba sunu xel dafa muuru woon waaye sëriñ Touba mi nga xam ne moo joxe woon digal ñu salit pàkk bii moom la ñuy ñaan lépp lu fi bëgg te xam na ne ca la gën a gaawe kon Serigne Touba nun ñii di say taalibe eh, liñ soxla ci dëkk bii te mëne su ko ñàkk yow lan ko ñaan te it bëgg nañ nga wol na ci ndax su fekkente mbir ab taalibe da koo bëgg da koy jaare fam ko war a jaare muy Serigne tubaab mi nga xam ne mooy borom pàkk bi moo joxoon ndigal ñu sanc ko ndax fii ñi fi dëkk bari nañ lu ñu yittewoo daan ko wax di ko bëgg waaye mel na yombul waaye suñ xela a muur woon waaye jaar na ko sëñ Touba rek moom lañ tàllal suñ loxo li ñu war ci dëkk bii te bëgg ko te baax ci askan wi noo koy ñaan mu defal nu ko nam gën ci nun asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamualeykum mbooloo mi ñu sant ñoo ngi sant yàlla di julli jiyaatu sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sëriñ Sidi Muxtaar yàlla yàggal ko fi te wéral ko te mu àggale naa lii mu naal ci kër Serigne Touba ndax bi bii kat bi ñu ko tàmbali ànd nañu ak sëriñ Fallou dem ci moom mu defal ñu ñaan ñu incha allah li leen bëgg danañ ko danañ ko am ba liñ ci bëggoon lépp am nañ ko kon yàlla ko yàlla yàggal suñu kanam di sant sëriñ Serigne Moustapha Massamba xëy fi ma Massamba di ko ñaan yàlla yokk wéram te yàggal ko fi moom it ba mu ànd ak ma Massamba yi ndax moom it ay ñaanam jot nañ ko jot nañ ci di sant moo moom bis bi te lu ci am mooma di ko ñaar mu yàgg fi lool te wér ba naal yi mu sëmb ci dëkk bi ak li mu fi mébét lépp mu àggale ko ci kanamu njaboot gi ak rakk yi ak taalibe yi ah, di dalal gan ñëpp nag ci dëkk bi nga xam ne dëkkub sëriñ Massamba la dëkkub sëriñ Modou Faty Khary la ndax dëkk la boo xam ni dafa bokk ci Touba ñu féetale ko sëriñ Modou Faty Khary ñu fab dënk dëkk bi sëriñ bi teg ko ci sama loxo ma di ko saytu di sant mbooleem ñi fi dëkk ah di leen ñaanal ak wér ak yokk ñu yàgg ci taalibe ah di fedd li sëriñ bi waxoon rek li ñu daan bañ lépp lu ñu bañ Tuubaa mi ngi koy bañ fii ci Daaru Karim ndax ci pàkk Tuubaa la bokk di leen soññaat li nga xam ne ñoo ko séq ñu góorlu ci ci ndigal te moytu tere ah bu loolu jàllee nag dafa am ay délégation yoo xam ne nii dañoo ne woon jotu sëriñ bi ñu agsi ci nun ñu di leen dalal ñu bëgg ci lem lu néew rek joxe kàddu gi dañ ci jiital nag waa kër sëriñ Massamba ci taxawaayu sëriñ Moussa Massamba ak njabootam ñëpp nekk fi ak sama rakk yi nga xam ne ñu àndoon liggéey bi ndax dañ koy yaatal ku mel ne sëriñ Modou Yadali ak sëriñ Aliou Mbacke mi yoroon communication bi ak sëriñ Abou ak sëriñ Aliou ñoom ñëpp ñi si jàppoon ñooy amuñu seen pay ndax liggéey bi kenn ku nekk def nga gisee fi bopp ba ñu ànd ko fii kon yàlla nañ ko jeexal ci alhamdulillahi rabbil alamin kon li ñu def sama kàddu rek dama ko bàyyee mu àggale ko aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wax wahda wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi wa wa man bi daxwatihi ila yawmi din ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi sant sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mbokki jullit yi ñi ngi leen di nuyu bu baax ci weeru tedd wii di saxru ramadaan al mubaarak alladi unsila fihi al quraan ñi ngi leen di nuyu itam ci guddi gu tedd gi nga xam ne moom la yàlla waxoon ne ina ansalnaahu fi laylatil mubaarak waxoon ne ina ansalnaahu fi laylatil xadr wa ma adraka ma laylatul xadr laylatul xadr xayrun min alfi sahri tannazalu malaikatu wa ruuhu fiha rabbihim min kulli amrin salaamun hiya atamallahi alfajri muy guddi goo xam ne moo gën junni weer muy guddi goo xam ne li ci nekk ci ay mbóot kenn xamul lu mu toll muy guddi goo xam ne ku jaamu woon yàlla far dajeeg moom 83 ans yu teg 4 mois yu teg 15 jours la yoo xam ne suñ borom nangul na la ko kon guddi gu tedd la ñu ngi ciy siyaare ñëpp guddi googu nag yàlla dogal ci ab dogalam ci ñu ko war di màggal ci Sénégal ci ñu ñu xam muy jëmm ju tedd muy Cheikh Mouhamadul Fati Xari Mbacke ibnu ma Massamba Mbacke yàlla dogal ko ci moom mu am ko di ko def fii ci daarul karim ba jóge fi bàyyee ko doomam Serigne Cheikh mu di ko def ñu nekk ci ba tey ji loolu mooy li ñu fi dajale tey ginnaaw loolu nag ñi ngi ziyaare kilifa yi fi teew yëpp di jiital ci ziyaar boobu Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ne moo toog toogaayu Serigne Cheikh fii ci biir baas bi di jël ziyaar bi itam li ci des kilifa diine yi fi teew jox ko sëriñ Cheikh Bara Laat mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Siidel Muxtaar mi nga xam ne duñ def lu dul di ko ñaanal yàlla guddal aw fanam te bàyyi ko fi te liggéey bi mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéeyal ko ko kon nuyoo bi ñu ngi koy jottali ñooñu. di sof nag suñuy kàddu ci kàddu Serigne ab Serigne Modou Kara Mbacké ndax kenn ku ne xam na ne baas bi fii fukki at yi weesu ñi nga xam ne ñoo fi daan jël parole benn liste rek la boo xam ne musta changé benn yoon amul kenn ku ci dolleeku lu dul tey te li ko sabab itam dinañ ko wax mu leer du dara du xuloo wala xeex wala war a wax lu tàng walla luñ ñemewut a wax ñu war koo wax déedéet dafa fekk ni Serigne Modou Kara mi nga xam ne mooy chef de village su dëkk bi moom la ko dénk lu ñu def ci dëkk bi xam na lu ñu deful ci dëkk bi xam na waaye yàlla suñu borom ko taala dafa dogal ci ab bëgg-bëggam moom mu am ku mu àndal ci wàllu politik muy Serigne Fallou Mbacké ñu élire ko ci benn liste kon bu nekkee chef de village su dëkk bi bokk ci benn liste am na luy naqari dëkk bi loo xam ne su ko waxee ci aw làmmiñam mënees na koo gisee kàddu politique mën yooyu jàpp ne ku bokk ci parti opposition la wala ku bokk ci parti buy campagnal partem la loolu moo tax kàddu yooyu ñu war a sof ñu jox ma ko ne naa ko yeggale man mi bokkul ci benn parti musuma jënd carte benn parti te duma jënd carte benn parti ba ilaa yomi diini man sama parti Serigne Touba li nga xam ne am na moo di daaru karim gi nga xam ne sëriñ Modou Fati Xari moo fi nekk dafay ab dëkk boo xam ne ab quartier la ci Touba li war ci carte yëpp war ci moom waaye ñu won ko ginnaaw daniir la ko ci yu bari li may wax yaakaar naa yéen ñi nga xam ne yéen fi teew ñëpp xam ngeen ci dara kenn ku ci nekk bi nga fiy ñëw jaar nga ci yoon wi xam nga yoon wi li fi nekk yoon woo xam ne 2002 lañ ko defoon nii at mu nekk ñu naan dinañ ko defar at mu ne ñu ne bu déwénee dinañ ko defar waaye boobu ba léegi gisuñu dara lu ci changé te fiñ ko war a jaar fépp jaar nañ ko fa ndax kenn ku ne xam ne ne njabootuk sëñ du Faty Khary duñu ay yambar jàngadiwuñu ñàkkuñoo xam itam li xew topp nañ ko jaar nañ ko fiñ ko war a jaar fépp ba mu yegg fépp foo gis ñu def fa aw yoon ñooña fa ñu jaar njabootu sëñ Modou Faty Khary ak Daaru Karim jaar nañ fa waaye boobu ba léegi kenn fu laalu leen ci dara loola nag du lu ñu naqari du lu ñuy xeex lu ñuy wëlbatiku di ko xeex déedéet liñ bëgg a xam rek mooy lu tey ñu defar ko ak kan lañ ñu booleel ak kan moo ko war a defar ginnaaw bu ñu xamee liñ ci xam ba pare ndax état moom mbiram xam nañ ko tali ku ko soxla fa ngay jaar xam nañ ko ña ko war a defar xam nañ ko yaakaar naa yoon wii nga xam ne nekkul lu dul deux mille deux cent mètres di deux kilomètres cinq cent depuis deux mille deux ba léegi dossier bi nekk Ageroute mënuñoo taxaw ba wax ci dara loolu war nañ ñoo wax lan moo nekk ci biir ñiñ dénk loolu mooy ñan su fekkee communauté rurale lañ dénk loolu ñu war a wax ak ñun communauté rurale nañ wax ak ñun lu leer ñu xam su fekkee ñun dañoo wërta amub tali wala waruñoo amu yoon ñu wax ñu ko communauté rurale nag suñu rafet njortul ci ñoom suñu njort rafetul ci ñoom dara suñu njort rafetul ci communauté rural ndax teewuñu fi nekkuñu fi du ngeen leen fi gis ils sont boudés dañoo gedd dem nekkuñu fi te amul benn baas bu toll nii ci Touba ci yoonu murit te waruñu faa ñëw seen soxla mooy di fa dem waaye teguñu fi seen tànk loolu fuñ ko teg mboolem bis yi nga xam ne dañoo waraloo liggéeyal dëkk bi ndax euh, commune moom kenn ku ne xam na ne euh, argent contribuable lu nit ñi rek lañuy ñuy dajale te Daaru Karim dañuy contribuer dañuy fay impo ci réew mi lañ bokk ci dëkk bi lañ bokk ay citoyen lañ kon li tax li ñuy defal ñëpp duñ leen ko defal amul dara lu xew ci màggal gi CDD bi bi buñ ko defee préfet mooy sama seede famille Serigne du Fati Khari mooy sama su sous moo Modou Mbacké Fall mooy sama seede li ñu leen waxoon ne leen nañ ko def daaru karim mat na fukki mbir amul benn buñ ci def luñ ci def nañ ñëw taxaw fi wax ko defuñu dara ñun ñoo yoroon coordination bi liggéey bi ñoo ko xam benn làmp bi fi gën a tuuti taaluñu ko daanañ ñu yabalal dañ daan nañ ñu yabalal quatre plan boo xam daf daan redressé da daan dressé yoon wi pour accident yi fii am ab rang-rang latri bu bon kenn ku ne xam na ne bu nawetee bu tawee dafay def ay toj-toj ci côté yi bu fa oto jaaree mën naa daaneel oto at mu ne dañ daan yónnee lu ko defar gisuñu leen dégguñu leen ak yeneen yoo xam ne mat na ay fukki mbir yoo xam ne ñi ngi ko séq ak ñëpp te séquñu kook ñun defuñu ko loolu moo tax ñu di ko wax ñoom nag liñ leen di wax leen rek la mooy am na kuñ leen rusee am na kuñ leen rusee jéemuñu ci ñoom dara nag ndax kenn ku nekk xam na ne dëkk bi dafa am kilifa te kilifa googu moom mooy Cheikh Sidi El Muxtaar ñu ngi koy ñaanal yàlla yàgg ko yàggal ko fi te bis bii bi biñ ko waajee ànd nañu ak sëriñ Fallou ak njabootu sëriñ Modou Fati xari gépp dem seeti ko wax ko ko mu wax ñu ne ñu na ngeen ci góor góorlu te yaatal ko te fu ngeen ko daan yeggale na ngeen ko gën a yaatal ñaanal nu nu yeewee ko dem njaboot gaa ngi ci kaw di ma seere kooke itam bu sañoon ni ñi nga xam ne ñoom lañ dénk dëkk bi ni ñuy liggéeyalee ñëpp ñu libéey liggéey la ko njabootuk sëñ Modou faati Xari waaye wan ginnaaw gi ñu wan ginnaaw njabootuk sëñ Modou Fati Xari ñoom commune bi loolu lu ñaaw la te lii may wax bala ma ko woon a gën a mën a wax sax ka ñuy wax Abdoulahat Ka di responsable bu toogoon fii tey ci laa gën a mën a wax loolu nañ ñëw suñ ñëwee dinañ wax ne lii lañ def duñ ko mos a wax ba ilaa yomi diini rapport yaa ngi fi te dinañ defaat CDD après bu boobaa loolu sous préfet dina ko confirmer wala préfet dina ko confirmer loolu lañ amoon ci luñ doon wax ñi ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. rahim maa ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp di leen nuyu ci turu Cheikh Sidi Mokhtar di jiital ci nuyoo boobu sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy kilifa bërëb bi tey. tarakam yi nekkal ko fi sëriñ Fàllu jiitu ca ak sëriñ Basiiru ak sëriñ Abdoulahat sëriñ Idaali mi doon waxe ak sëriñ Modou Kara ak ñi nga xam ne ñëwuñu góor ak jigéen mag ak ndaw njabootu sëriñ Modou Fati Xari ñoo ngi leen di nuyu di teg nuyoo bi ci loxob sëriñ Fàllu ngir mu jaarale ko sëriñ Cheikh mu jaarale ko ci sëriñ Ahma mi mu tegal ni ko ci loxo sëriñ Moustapha Massamba mi nga xam ne jitaay bii ak beneen bu moom ci kër sëriñ Massamba mooy ki nga xam ne moom la ko yàlla dénk ñu di ko ñaanal mu yàgg te ànd ak wér kon sëriñ Ahma nga jottali ñu sëriñ bi nuyoo bi ginnaaw bu mu jaaree ci sëriñ Fallou may nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom la fi président yabal te jiite ko di Abdou Ndéné Sall ak Isma Dioum Fallou Amadou Fall Naydé ak ñaari préfet yi ma séq ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñëpp ku ma ci fàtte it mu jéggal ma ma di leen nuyu bu baax di sàkku ci Abdou Ndéné Sall mu jottalil sëriñ bi nuyoom ak cantam ak ñaaram ci président de la république mi ko fi yebal di nuyu bokki taalibe yi fi daje yëpp tamit nag ak xarit yi ak wëllëre ak am jàmm yi ndax taalibe yi lu fi xew ñooma ndax boo dee xool ji baas bii ñoo ko fi baas liñ fiy lekk ñoo ko fi indi liñ fiy naan ñoo ko fi indi ñooy dindiwaat baas bi bu nëppee ñooy togg jox nit ñi tëlu ñoo sangu tëlu ñoo lekk tëlu ñoo def dara lu may di dakk bëgg-bëggu sëriñ Tubaa di ko jaar la ci seen kilifa yi nekk ci seen kanam kon yal na leen yàlla may ngerewul sëriñ Tubaa loolu ngeen dakk seen kilifa yi di wax rek sëriñ Fallou ne ko sëriñ Sidi Muxtaar mi ngi leen di siyaar ci bés bu tedd bii tey genn guddi goo xam ne moo gën junniy weer kon guddi mënu koo gën a tedd weer woo xam ne ca alxuraan wàcc weer mënu koo gën a tedd weer woo xam ne njëlbeen gi yërmande la digg ba njëggal la muj ga jot sa bopp ci sawara la kon ñetti pàcc yooyu képp ci yemoon weer mënu koo gën a tedd weer woo xam ne ci lañ defoon xarab badar weer munu koo gën a tedd weer wu alxuraan wàcc weer munu koo gën a tedd te yàlla dafa wax ni koor du ma ko yónnee duma ma yóbbante du jibril du kenn man maay fayal sama bopp koor kon weer wii képp ko nga xam ne da nga koo séddoo rawatina séddoowaat bisu laytul xadri ci weer wii kon kenn ku nekk xam na ne sëriñ Modou Fati Xari ku amoon vision la te vision boobu itam tegu ko woon ci ay xalaatu boppam da koo tegoon ci jaar ko ci ndigal ndax bis bi dafa naa bu ma juumul Cheikh Moustapha moo tànn bis bi jox ko ko moom itam mu tànn béréb bii di bérébu sëñ ma Massamba andi ko fi kon loolu dafa lay jox firnde ni e, ñoom ñu jëkk ñooñee lu ñu am vision la ñu woon waaye seen vision boobu itamit nag ci kaw ndigal lañ ko doon doxee duñ ko doon dox rek ci seen xalaatu bopp comme yii xew tey sëñ bi war naa def nangam war naa wax nangam war naa def lii wala nga def ba noppi soog a dem di tàggu damaa ñëwoon di la yëgal si damaa jëm béréb sàngam doo tàggoo bañ bàyyi la doo wax bañ bàyyi la nga xam ne mooy yooyu xew tey ñooñu nekkuñu woon foofu ndax li lay xamal ñooñu nekkuñu woon foofu mooy bu jëkk mag ñi dañu daan jóge fii fekk sëriñ Tuubaa xumaag dégg naa laay mbay muy wax tey ni Abdou Ndéné Sall moom maamam defoon na waaye maam ñooñee bañ ko daan def itam yenn saa yi da daan am ngant ndax ngant li mooy dañ daan jóge fii dem ba ci yoon dajeeg àddu kalpe yi ñu nangu li ñu yor yenn saa yi sax ñu ñu def leen leneen ñu agressé leen def leen yeneen ak yeneen pourtant buñ ñibbisee dañuy waajaat pour delluwaat ci sëñ bi loolu mooy pas-pas waane léegi nun taalibe yii boo demoon ci saalub nit xaar ko ñaari minute képp dikkut doo wax ni dem naa fa gisuma ko dem naa fa ñu ñu ni ma sëñ bi de fekk sëñ bi nelaw ngay wax wala nga ne man du ma toog ci saal di xaar kenn wala nangam ak nangam te pas-pas ci la lépp nag ndax nit ku am pas-pas fokk mu ragal yàlla te boo la boo ragalee yàlla luy lore dalay ragal yow taqwa bu nekkee ci yow dëgg-dëgg boo dajewoon ak gaynde muy fàddi nit ba yegsi ci yow bu la séenee day daw say moroomi nit lay fàdd ba yegsi ci yow séen la daw bu taqwa nekkee ci yow kon amul dara lu gën lu féete kaw ragal suñu borom sëriñ tubaa ndam yi mu am li muy rëy rëy ndam yi ragal suñu borom mooy li ko may ñu bëri ci mbiri sëñ tubaa ay wilaaya lañ ci indi yeneen ak yu kenn xamul waaye ay mbir la yoo nga xam ne yàlla sunu borom ci boppam moo ne ku mel nii ma melal la nii ku def lii ma defal la lii ku wax lii ma waxal la lii lu ca sëriñ tubaa wax mbaa mu def ko nag yàlla sunu borom wan na ko ca ba àdduna sépp gis ko ba muy sànni ab daram ci ndox mi ngir bañ a faatu waxtu boromam te tubaab bi ne ko boo jullee ci sama gaal gi tooñ te boo julli wutit di nga tooñ sa borom ba mu jël der ba di ko sànni du wilaaya du lenn la mu doon mooy jox yàlla borom ba mu jeex takk lu ko ci fekk itam mu xam ne yàllaa waxoon ne wa maa jën na wal sa insa illaa liya'buduun ba mu ko sànnee ca géej ca géej ga na mu ko bëggee la ko amee waññeekuwaat delluwaat fam fa mu waroon a dem te loolu lépp taqwa ragal suñu borom mooy li ko may kon ku nekk taalibe Sëriñ Tuubaa war ngaa ragal yàlla war ngaa nangoo jaamu yàlla war ngaa foo seen sab nawle nga jël ko def ko ni sa bopp defe ko ni la ko alxuraan digali sa moroomum jullit balaa sa jullita mën mat su sa moroomum jullit mu ne da nga koy def ni sa bopp ay doomam nga def leen ni say doom ay njabootam nga def leen ni seen seeni njaboot beneen bi ci topp mooy phénomène yii xew léegi waa kër Serigne Touba damay wax jullit sax laay wax moom alxuraan ak ko tere yàlla yonent bi tere ko Serigne Touba tere ko jamono yii télévision boo ubbi wala rajo yaa ngi gis ñuy xaste wuññeent ay ñaawteef di àgg ci yoo xam ne maanaa koo euh, euh, koo ki gën a nekk sa ennemi ci àdduna nga xam ne xam nga ni kii bu ñu ko tegee mu rey la sax waroog koo feeñal gis nga kiy tooñ ak kii fay ñoom ñaar dong nga yem tooñ ak kii fayu ñoom ñaar keppa a ndax nit am na loo xam ne sëñ Saliou daf daan wax ni bu nit waxee dara ci yow tey jii muy muy juróom fukk boo tontoo bu subaa wax ja doon téeméer bu la tontuwaatee bu ca gannaaw suba saa mu doon téeméer ak juróom fukk bis bañ cay topp bu la tontuwaatee muy deux ans nee na noonu ngeen koy toppee ba dootu leen liggéey dootu leen jaamu yàlla kon bu nit waxee bàyyi ko mu wax bu subaa bu waxaatee kenn tontuwu ko moo ngelawam dootoo ko dégg waaye rajo boo ubbi lañuy wax benn nopp mënu koo dégg télévision boo ubbi la ñuy wax benn nopp mënu koo dégg te kat loolu dara waralu ko lul àdduna képp yàlla dara ci yàlla taxut ñu di ko wax a ko def wax ju ñaaw ji ñu waxante ci télé yi ak rajo yi ngir di jëkkante ay euh, ndombay tànk ak ay yëfi adduna ak ay nangam yu kenn xamul lu mu doon ak i poste yu kenn xam mais lan la ñu daw lan la ñu daw suñu borom kenn ku nekk ci nun awaa ngay gën a adduna bind na sa lépp boo doon naaw ni concorde itam munta tax mu ñëw te yëg seegul waaw mais mais nit ñi booy xool da nga naan lan la ñu bëgg ngay wax lan la ñu bëgg man nag lii wax dëgg yàlla constat bi mboolem ko fi toog li ma constaté constaté nga ko doo xëy ba ngoon jot déggoo ci rajo yi loo xam ne tey ku ko wax ku la ko waxoon yow mu métti la ku ko waxoon sa wajur mu métti ko ku ko waxoon wajuru euh, sa sëriñ mu métti ko doo xëy ba ngoon jot déggoo ko mais loolu mooy mooy mooy doxal réew réew liggéeyee ko yor ay wax yoru ko ay wax yu ñaaw yoru ko ay am naa lii ñàkk naa lii nangam yoru ko gis nga nit la mi am moo koy liggéeyal boppam nit li mu am moom moo koy liggéeyal boppam gis nga kenn américain yi ñu mu rawe ku ne jàpp nga ne bu Amérique yàqoo yaa ko yàq yaa wéeruwuñ ci kenn yaakaaruñ kenn xaaruñu kenn ku ne sa bopp ngay xaar bu ku xaaree sa bopp liggéey mais Sénégal day avancé kenn nit ku nekk bu amee lum def loo xam ne wóor na lii yaa ko participé joxoñ ko ni yaa ko participé ci réew mi 13 millions yëpp ñu def loolu village bu nekk ci Sénégal def ko région bu fi nekk def ko dëkk bu mag bu fi nekk def kilifa gu fi nekk def ko mais Sénégal day avancé day jëm kanam parce que loolu mooy defar réew boo xoolee suñu mag ñi ñi mel ni sëñ Moudou Fatick ñi mel ni sëñ Massamba mi ko meññ ak ñeneen ak ñeneen mais ñaata tool lañ fi gor li wóor mooy nguur gi soo demoon di leen laaj këyitu demande tool moom boo demee bañ ko mujjee jot kenn xamut kañ la te pourtant ñun suñu baay suñu maam yi demande tool rek lañ doon liggéey ku am fukki tool sax du tax mu doy la te tey ji seen tool yooyu seen njaboot yi nga xam ne sax man naa wax ne ñoom lañu doon xàllal tool yi xàllal leen yoon wi kenn demut ci seen tool yooyu liggéey wala mu jàngale ci pourtant loolu lu jara lu jara la kon maa ngi maa ngi maa ngi gërëm ñépp maa ngi sant ñépp te daal di di di di di di naqarlu nag ay jullit yuy yuy xastante ci ay média yoo xam ne àdduna sépp di ko dégg te ñu ne ay jullit lañ te kat jëmul ci dara lu dul njariñul adduna boo doon xaste ngir yàlla xaste ngir ngir sa moromum jullit muñ def ñaawteef wala nangam nga mën a wax waaye ay xaste wax lu bon goo xam ne jëmul ci dara lu dul say say intérêt bopp yàlla bëggewu ko noonu de ndax dafa waxoon ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ñun nit ak jinna yàlla binduñu andi ni fii lu dul nu war koo jaam bu ñu koy jaamu waru noo koo jaamu ngir ni bu ma julliwut ñu lakk ma wala bu ma bu ma wooru ñu def ma wala da dañ koo war a def ngir xam ni ndigal la lu yàlla teg ci sun ci sun ko yàlla ku mu atta ci ay ci ak maandoom nga dem sabar ku mu atta ci yërmandeem da nga mucc ñun nag ñoo nga ñun ñu ànd ak sëñ Tuubaa wóolul nañ ni yàlla mën na noo atta ci ci ci ci yërmandeem ndax sëñ tubaa da koo jëf ci moom ba mu ci su yonente ba mu mat sëkk jëf ko ci sunu borom ba mu mat sëkk ba sunu borom may ko mu ko may kon nag ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di dellu rekk daal di wax ni wax ju ñaaw ji ëpp na bari na te yàlla taxut amu ci dara loo xam ne yàlla suñu borom moo tax suba ngay jot nag ñu ne ma ñu dama doon corriger wala dama doon wax lii wala damay naan ma man sama tempérament mooy man li ma gëm. mooy lu ma gis ci lislaam wala ma gis ko ci yoonu Serigne Touba yooyu wala ma gis ko ci Sénégal ci boppam ci loo xam ni lii tey wóor ne ma ni lii yàlla bugg ko te bëgg ko man la ma ca mën a wax dinaa ko wax ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di dellu di sant euh, euh, euh, Serigne Fallou bu baax ci taxawaayam ci ginnaawu Serigne Cheikh ndax wax dëgg yàlla sëriñ Cheikh tëdd na waaye Serigne Fallou it li mu war a def lépp ci bokk yi moo xam ci ci ci biir kër gi la moo xam feneen waaye fañ ca gën xam daal mooy ci digganteem ak seex Sidi Moukhtar loo xam ne lii tey Serigne Cheikh mii war na koo dox ci Cheikh Sidi Moukhtar wala war na koo jëf wala war na ko wax Serigne Fallou mii mën naa wax ne ma ngay dox juróomi loola di ko jëf di ko wax te itam du ñëw ci sëñ Sidi Moukhtar mukk indi fa yitteem yitte Serigne Cheikh ak nuyoo ma ki ñaanam ak cantam dana nuyoo ba jóg dem sëñ Cheikh lay ñaan loolu waaye du ñaan loolu boppam loolu nag dafa naa du lu yomb ci suñu jamono ji kon sëñ Fallou ñoo ngi lay gërëm bu baax di sant ñoo ngi gërëm mbooloo mi fi daje ñépp di ñaan yàlla béréb bii sëñ Massamba mi ko sañcoon xoolal gëm leen ni sëñ ma sàmba mi sañcoon bërëb bii ak ak ak eh, Serigne Touba mi ko fa yabaloon ñooñu kenn lañ say wax dul faraanaal fii mu fekk nu fi ak mu ñàkk nu fee fekk lii ñu fi bëgg daf fi am ndax sëñ Massamba ñaan na ko Serigne Touba mi ko fi yabaloon ñaan na ko ñi ko sëñ Moudou Fatou Khari mi ko fi remplacé ñaan na ko loolu da koy gëm parce que moo mooy mooy li nga xam ne moo am te lu yàgg-yàgg itam lii may wax nii yàlla suñu borom mën naa dogal ñu ñu ñu teg ci suñu bët kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax te di leen gërëm nuyoo bi nag comme ni ko murit baaxoo defee nu fas ko yéenee doxale noonu ñu ngi tàmbalee nuyoo bi ci Cheikh Seydil Mokhtar Mbacké xalifatul am li taifatil muridiya ñaan suñ borom tabaraka wa taala mu yàggal ko fi te eggale ab liggéeyam lépp lum naanal Sëriñ Tuubaa mu ànd ko nun dox ko lépp di teg ci nuyoo bi nag xalifa sëriñ Masamba Mbakke Cheikh Mouhamadou Moustapha sunu sëriñ di ko nuyu di ko siyaar tey ñaan yàlla sut borom tabaraka wa taala mu dolli ko wér te mottalil ko lépp loo xam ne naalal na ko ma Masamba te naal boobee bu eggee kër sëriñ Masamba gépp daañu bég ñu ñaan sunu borom nag nu ànd koog moom topp ci ginnaawam muy digle nuy def lu yàgg yàgg ba lépp lu mu yéene kër sëñ Masamba loola am ci barke sëñ Touba. di teg ci nuyoo bi ne sëñ borom kër gi muy sëriñ Cheikh Mbakke xalifatu sëriñ Modou Faty Khary ni ñaan sun borom tabaraka wa taala mu dolli ko wér. dolli ko kattan ba li mu naalal sëñ Modou Faty Khary Mbakke lépp. mu def ko bu mat sëkk te kook koog noonu kilifa gu baax la kilifa gu yaatu la kilifa gu woyof la ku yërëme la koo xam ne boo ko waxoon fukki dërëm ne ko moom laa soxla mën na la fa téye ba ngoon ngir yéene la fanweer lu yem ci fukki ya waaye fukki ya lay boole naas lu ak fanweer yem la yéene sant nañ ko loolu gërëm nañ ko gannaaw loolu nag ñu ngi nuyu mboolem njabootu sëñ Modou Faty Khary Mbacké te ci bopp ba ñi nekk ci gannaaw sëñ Cheikh sëñ Fallou la ci bopp ba nga xam ne nii ko sëñ Cheikh Bara Laat waxe noonu la amee sëñ Fallou ku woyof la ku bëgg kilifa kilifaam la ku àttan na ñàkk la ku yërëm ay rakkam la waaye ku mën a dimbalee la itam Ah, ba tax na ñu ngi koy ñaanal sun borom dolli ko kàttan dolli ko wér ba lépp li nga xam ne ndigal la yuy jóge sun kilifa gi nii mu ko assuré ba kenn jàbbatu dara sun borom may ko kàttan may ko wér ba mu gën koo doxal ni mu ko bëggee ci barke sëñ Tuubaa gannaaw loolu nag ñu jublu ci li nga xam ne mooy moo nu fi dajale waaw lenn fi dajale nag mooy saaru ramadaan saaru ramadaan mooy weer bi nga xam ne mooy weeru promotion weer la woo xam ne lépp loolu li defal yàlla ñu di la ko fay bu weer bi teroo loo ko defee dañ dañ koy ful te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sayyidu shuhur mooy saaru ramadaan sayyidu soor mooy sangu weer yi mooy mooy mooy ramadaan waaye sayidul ayaam yi muy yowmal jumaati kon maanaam ci wolof ramadaan weer yëpp ramadaan la ci gën waaye bis yëpp ajuma ci gën ajuma yëpp ajuma yi laylatul xadar yi moo ci gën mu ñëpp xam ne nag jàpp na nag ajuma ji guddi gi rek ci lay am déedéet laylatul xadar yi ajuma lay doon guddi gi lañ dàq di ko màggal mu jëm suba bu doon tey guddi biig gi la màggal kon ni nu fokkee guddi gi ba taxawal ko kenn ku ne def ay berde kenn ku ne def ay dog kenn ku ne jàngal xuraan ñu bari mottali seeni kaamil tey nañ ni fokkee suba ci bëccëg bi ndax guddi gi moo am na doole lool waaye suba moo ko ëpp doole kon de niñ ñu defarale yàlla guddi gi yàlla nañ ko dangu te gudd nu cee sóob ba ñaan ci lépp li nga xam ne moom moom la yàlla yor te soxla ko te bën luñ ko suñ bopp waaye suba it dañ ko fonk bu baax a baax sellal ko ndax ku ko sellal rek sellal nga juróom ñetti fukki at ak ci sa dund ku ko sellal sellalati ko rek léegi am rafet njott ci sa bopp te kat àddina jublu yàlla jot na ndax kuy taxaw yaay taxaw waaye dund bi moom taxawut jant bi li mu ngi fekk yaa ngi dem te fenn jëm de lenn lenn lu nu wóolu yaakaar ko man caa teg loxo lu dul sëñ Tuubaa amul waaye sëriñ Tuubaa nag dafa digle li mu digle nag ku la ne sëriñ Tuubaa digle lu mu ne ko sëriñ Tuubaa daal ndigalam weesuwul liggéey jàmm yàlla moytu tooñ ku la tooñ nga baal ko te maandu julli su yoon nekkut te dind ko ñaan ci sa xol te woyof toy te tabe tey dimbalee te yërëm koo war a yërëm lii mooy li nga xam ne moom la sëñ moom la moom la sëñ mooy mooy ndigalul sëñ tubaa sëñ tubaa moom nag am wax bu mu wax mu wax ne tiinu naa leen fa sama borom ba borom tin na ma jigéen yéen ni mu tinoo kët mooy wala tubaa xisum bi kusuri sët biim fa innahum way na asawka yaa ahad li xaflati lam yusrikoo bi ka ahad fa innahum abdaanuhum la taqdiru ala balaayika li dox fet yasharu qulubuhum laysa tamilu abada ila sawaka min huna ila gada lakin ma talul surtiwaare afdahuma li aqbayil xabaay isan fala tuwaaxisum bi maa laa yan xusuk wala mu xabbil si laa yéen toog ñii may tënu bu leen jàppee barik bakkaar barik bakkaar gi nga xam ne maanaam buñ ko defee du la wàññi dara te buñ ko defoo di du la jariñ dara ñoom lay jariñ ñoom lay wàññi yow mi nga xam ne yaa moom bindéef bi tin ma ji ñii ñañ jur ak ñooñe ñi ñuy jur ak ñooñ ñi jur ba saati taxaw tin ma ji ñoom daldi ne buñ la feb moyoon ñoom ñëpp itam du la wàññi dara buñ la jaamoon ñoom ñëpp di mu waree itam du la jariñ dara ñoom la jaamu nga di jariñ ñoom la ñàkk jaamu nga di wàññi waaye seen yàppi yaram yii nga xam ne ak doomu aadama da ceen ne te ku bëgg a wokkatu wokkatu ba bëgg fudd fudd lool rek boo leen jàpp ba yiy juum léeg-léeg waaye jaawale wuñ ne yaaykat yaa leen bind yaa leen moom yaa leen di wërsëgal yaa leen di rey yaa dekkal ëllëg kon ba saa borom tin sëñ tubaa ci nun sëñ tubaa dag wax ne dama bëggoon na ngeen fogg digalul yàlla lool ak alxuraan ji di jaamu ci sunna tey moytu ndax seen jàmm yàlla yii dafa am ñoo xam ne am nañu gémmiñu àddina am lu leen gaar ba mënuñoo ñëw ci man ba egsi waaye am nañu xol cofeel ci man bu yowmal xiyaamatil akbar jotee damay fab seen julli yi def ko ab raas mu jëlalu ba ca ñoom ñu mën a jaar ca raas boobee ñëw dugg ci yërmande ji sëñ Tuubaa nag gannaaw féete noonu fi mu nu féete feddaliwaat li yàlla farataaloon ci nun war na noo fokk jaamu yàlla bu baax ngir sëñ Tuubaa ndax avocat boo xam rek boo lay demal ci cour bi te dem na ci cour bi bu mel na ne yaa gàjji procès ba bu wëlbatikoo ñaan la dara loo xam ne yàlla dala koo defoon obligatoire war nga am fullay loola nga ne ca kon nag nan góorgóor lu baax ci jaamu yàlla nan góorgóor lu baax ci wattu tere yàlla yi nan góorlu góor lu baax di jéggalu sut borom te jàngal alxuraan nan góorgóor lu baax it topp digal tey bàyyi tere te dooni murit yoo xam ne muriti jëf la ji doon yàlla nu yàlla def muriti jëf te bañ noo def muriti wax ndax bu njëkk ba wax moom dañ koo bàyyee woon ñeneen ñi waaw waaye jëf moom la murit baaxoo woon kon nag kuy denc dara lay caa cosaan la doo ko bàyyi ndax boo ko bàyyee bàyyee nga booba booba docteur yi ginnaaw loolu nag euh, Mm, maa ngi wax li may wax nag ci turu njabootu sëñ Modou Faty Khary gi ma yor seen parole waaw di leen xamal ne jot na mu baax a baax nu dollee góorgóorlu gannaaw bu ma leen santee nag gërëm leen ñaanal leen yàlla sun borom bi tabaraka wa taala koo ci gis nag ci njabootu sëñ Modou Faty Khary yëg naa ne ku ma ci gis rek gis naa ak jub ci yow ku ma ci gis it yëg naa jom ci yow kenn ci ñoom ku bëgg ko la yóbbaale amut koo ci rek bu bëggee daa bëgg a yóbbaale ñëpp kon nag loole ci barke sëñ Touba seen maam ak barke sëñ ma Massamba Mbacké ci barke sëñ Modou Fatick yàlla na leen yàlla dimbali ca loolee ba dañ ko bëgg ñu amee ko ni waaye nag war noonu dollee góorgóorlu nag góorlu bi ñu war a dollee góorgóorlu mooy nun ñëpp nañ xam ne benn bopp la ñu benn bopp nag kenn mënu koo xar ñaar nan góor góorgóorlu ci liggéey jaamu yàlla nan góor góorgóorlu ci bennoo ndax sëñ Modou Faty Khary kenn waxuma ko maa toog jenn ci ñii toog fi mu wax na ngeen doon benn tey joxanti cër kuy joxanti ku jox sa moroomum cër rek foo toll di am ku la ko jox waaye ku dul jox kenn cërit boo doon war àddina it foo jaar dañ lay bëccigal waaye doomub cër kon nan doole joxanti cër te foggante gannaaw loolu itam Euh, ñu ngi euh, ñaaxit fàttali taalibe yi ci turu sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Modou Faty Khary Mbacke ak ci turu njabootu sëñ Modou Faty Khary mu jëm ci taalibe yi nañ xam ne sëñ Modou Faty Khary daal moom as gor la woon ab jullit la woon taalibe bi sëñ Tuubaa la woon ku bëggoonu njàmbaar la te bëggoon jaamu yàlla te ñeme njaboot te bëgg lu baax bëgg sutura bëgg sutura daan ngormaal ñëpp kon nag taalibe yépp maa ngi leen di fàttali ci turu ci ak ñu dollee góorgóorlu bu baax ci ak taalibe ak taalibe nag maanaam ba nga xamante ne bii ah, sifaatu saadixil muridi benn waaye ñëw na laaj ko sëñ tubaa sëriñ tubaa da koo xamal ne ko sifaatu saadixil muridi Ibra Fall mooy ki nga xam ne moo ko xam waaw mu ñëw ci Seex Ibra Fall te mun na ko demal ci Ibra Fall mu ñëw ci Seex Ibra Fall Seydou Fall daal di ne ah sëñ Touba ñu laaj ko dara ah waxut ah xanaa ma jëfe ndigal wax na dëgg de li nga xam ne mooy melo Mourika Mourid Sadikh day seen góor mënu ko wax moroom ma as góor mënu koo wax moroom ma ndax loolu mooy bàyyil sa bopp jàpp ma moo dégg murit ndax boo juree jox ko mu bayali sëñ ba boo amee xéwal xéwal boo am ne sëñ bee ci jàkk boo yoroon nag oto wala kër sax ne doo ko nata ci sa bopp da naan sëñ bi sëñ bi ci gën ci man loolu koo ko xool xam ne ne yombut ndax léegi ku am ay bien da ko jëkka jëkka ko jëkka wat mooy sa waa kër ka nga ci gën a nopp ka nga ci gën a bëgg maa ngi jégalu mbaat boobu kon nag nan góor góorgóorlu di jaayante ndax jaayante kat dana taxa am loo jënd waaye ku dul jaayante ku dee sa yëpp laat mbàkki sama tolloon nee na lu way attanatu joxe ngir yàlla bu doon wër àddina ba àddina daje du gis ku ko na jox ngir yàlla kon nag dollee góorgóorlu mooy li nga xam ne moom la ñu war a def ñu ngi sant nag mboolem ñi fi teew te xam ne bis bii nag nekk na bis boo xam ne for na ci lool ndax de bis bu yàlla fonk ba noppi diñ ko baaxoo waxe ma ma ma ma gis koo ci téere yi gis ko ci euh, gëstu yi mag ñi wax ko mooy sëñ Modou Fati Xari Mbakke ma bis yi di tàmbali moo waxoon sëñ Modou Moustapha wax ko ne ko man di sëñ bi bis yi bari na waaye man ngeen ji bis laa bëgg nga tànnal ma ko waaw sëñ Modou Moustapha Mbakke wax ko ne ko ngeen ji bis mënuma la koo tànnal te du ci wax yàlla laa koy teg ndax yàlla nee na weer yëpp ramadaan a ci gën weeru koor waaye bis yëpp it ajuma ci gën ajuma yëpp it ajuma yi lay leen xadara ci gën kon nag laylatul xadar mooy bis boo xam ne juróom-ñett fukki at ak ñeent lay wecc ci jaabu yàlla ay ak i weer waaw sëñ Modou Fatick hésité wu daal di ko ne Mbàkke tànnal ma boobu waaw mu tànnal ko laylatul xadri muy ngeen ji bis promotion la nag tey lu waaye def ci lu baax dañ koy ful bu sellee rek incha allahu taala foo jëm dangay ngay jëm kanam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. boole ñaan mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teewal gouvernement bi leen xamal ne fii ci Daaru Karim ba léegi de am na ay doléance ay doléance yoo xam ne dañoo bëgg maanaam ko fi mën na ñëw rek mu jottil na ko monsieur le président ngir xam ne boobu nekk na doléance boo xam ne daf fee nekk au non de toute la famille ah maanaam parole bii nga xam ne moom laa porté maa ngi ciy wax ne mboolem njabootu sëñ Modou Faty Khary soxla nañu ay ay ay ay ay infrastructure yoo xam ne ci biir Daaru Karim lay nekk yoo xam ne nécessité la pour nit ki mën a dund normal ba ca jiitu mooy enclavement bii Daaru Karim enclavé amatu yoon bëgg nañ yoon wii ñu def ko yoon wu jub wu baax bu dëgër woo xam ne population ba bari boo xam ne kenn xamul lu mu toll ñu yaakaar dëkk bi kon ñu ngi leen di ñaan di ko fàttali wax naa ko fi ay ministre tontu nañ ma ne ma déwén duñ fi jaar duñ fi ñëw mukk te goudronné wuñ ko deux kilomètres cinq cent yoo xam ne nii dafa enclavé la jël na lool te mboolem suñu deux kilomètres yu mel na noonu suñuy nawle goudronné nañ ko waaw kon nag ñu ngi koy ñaan jottali leen nu ko président maanaam it am soxla nañ fi ab dispensaire dispensaire boo xam ne ñi fi yore oto ci guddi lu guddi guddi guddi guddi yaa ngay yóbbu nit ñi ci hôpital yi te boo demee da ngay fëgg ak fu ne nga defa dem la di jaabante hôpital bi ak bële boo demee bële ñu ne tëj dañ ko euh, maanaam gardien ba néewu fi kon maanaam première nécessité ak jigéen ñi nga xam ne ñuy tollu ay diggante te ne fi tey bëre di yor ay gone ñi ngi ñaan ñi ngi ñaan bu baax ngeen jottali nu président ne soxla nañu hôpital man nag dama ko fee wax a wax wax ba mu xaw a sàppi ba ku waxeet waxaat ko mu nekk loo xam ne ku ne wax na ko waaye wax dëgg yàlla daal war nañ soxla nañ fii ab dispensaire soxla nañ fii aw yoon waaw gannaaw buñ loolu la ngeen dégg ko déggati ko déggati ko nag ñu ngi leen di xamal ne fi ndoll nii nag moom day tëb tëb rek bett nu waaye kenn promesse képp mënatuñu koo gëmloo ndax ca nekk Ablaye Wade Thierno Lo ñoom ñëwoon nañ fi ñoom ñëpp Souleymane Ndéné Ndiaye ñëw na fi kenn ku ne ne nga bu déwénee bu ma jaaree fii lay jaar c'est une longue promesse. moo kon ñu ñi ngi insité ci loolu ñuy ñaan rek nag nun dañuy ñaan waa gannaaw loolu itam ñi ngi ñaan itam sum nawle yi nu bokkal dëkk bi nga xam ne ñooy maire de la commune ñu dolli respect bi ci nun waaw ndax am na yoo xam ne daf fii ñëw wax dëgg yàlla daf fiy ñëw mu am fépp fu taataa soo wootee walla ñu am catastrophe boo xam ne dañuy ñaan ndimbal yoo xam ne maire bi ci bopp moo ko war a assuré waaye nag bëgguñu daal bu doon nekk bëgguñu mu doon maire discrimination kooku moom bëgguñu ko dañoo bëgg mu doon maire boo xam ne dafay euh, maasale ñëpp te centraliser ñëpp waaye di discriminer daal bëgguñu ko léeg-léeg nag su leen neexee fu ñu leen woo danañ nu wuyu waaye mu wuyu maslaa rek waaye lay profon dëgg dëgg dëgg wala mu jar dara wala ñu jël ci kees gi pour population bi moom léeg-léeg ñu def ko léeg-léeg ñu ñu nelawal nu waaw waaw nelawal ba bu ñuy nuy nelawal nag danoo ñaan ngir yàlla ñoom it ñu xam ne nun ay ay faykat la ñu nun noo ngi nekk fii dañuy fay taxe rural te dañuy nekk fii te ay faykat lañu bu dee mem ci gouvernement bi contribution bi nun ñi kenn ku ñu faykat yi taxe la ñu man de maa gën a néew lu may fay taxi waaw waaye li wér wér at mu ne dinaa fay dix millions ci contribuable kon nag léegi war nañoo mën a war noo mën a taxawal ci ab dispensaire war nañ noo mën a taxawal aussi ci euh, enclavement bi yi nga xam ne dañ na koo bëgg a yebe ku la waxut nag dalay wax ne la ak yebe la lu ci fekk nag ak yebeel mën nu fekk ci ñaari kilomètres yi génn wàll yu ñu goudronné wul loolu nañ ñu dimbale ngir yàlla ay citoyen lañ te nun duñu xuloo duñu xeex waaye li nu bëgg nag dañ koy ñaan monsieur le ministre am du ministre le ministre yaa sunu sunu voix porté nañ la ko fexeel ba président de la République jot ci te te resoudre ko yaakaar nañ ko ñu ngi ñaan mu def ko Euh, maanaam itam li nga xam ne nag moom war nañ koo wax mooy dëgg bi ci boppam euh, ay quartier la waaye quartier bii nga xam ne moom la ñu dëkkee dëgg la Seex Masamba Mbàkke moo moo moo moo moo sañ ci dëkk bi waaye ba mag ñi di dëkki sëñ Modou May mu njëkk di taawam kere la sañ sëñ Mouhamad na ci topp ba muy sañ ci Touba Mbella la dem te sëñ Modou Fatick ri moo ci topp ba mu leen laajee joom deful clandestinité de te leen a laaj ñu ne ko nun day may nañ leen ndigalul nga dem dekkal ko ndax sëñ Moussa Mbacke sosoon aw kayit la yubbi liir naa kayit wa man sëñ dàmbale loo la joxoon kayit wa ci maanaam ci l'unanimité familiale sëñ Modou May ak sëñ Mahamadan ñi magoon dañoo accordé woon sëñ Modou ñëw fii dundal ko mu ñëw fi nag ba mu fi ñëwee nag ba gas fi ñaari teen toxal ay nit mbooloo indi leen fi di fi liggéey waaw ba mu fi liggéey ba nag ne nag yokk naa suufu Tuubaa yi am na valeur lu ci waay occupé woon yaa ngi doo tàmbalee yëg njëriñ li bi bi ñëpp fàqee ñëw Tuubaa kon li muy man ña ko seq duñ mën lu dul mu doon ay quartier waaye quartier bii nag dañoo dañoo dal dañoo ànd ak dal quartier bii dañoo ànd ak euh, loyauté dañoo am loyauté dañoo am transparence dañoo am am abnégation lépp dañ ko am ci ci loi waaw te duñ forcer dara mosuñoo def ay ñoom mais kenn du fi trian kenn du fi def dara kon nag loolu ñi ngi ñaan Euh, ñu dolli noo euh, maanaam intégré bu baax a baax taxawuñ suñuy soxla bu baax a baax li jëm ci communauté rurale bi itam nañ xam ne ñëpp citoyen lañ taxe rural ba ko nit ñi fayee maanaam dañoo war a euh, commune bi solo ses moyens waaye tey nag Touba seen seen moyens yi lañ ci war a def maa wax bëccëgub nar kaam na liñ ci war a def defu jugu ci wala buñ ko ci defee ñëpp gisuñu ko waaw léegi nag man organisation bi léegi mi ngi ci ñeneen kon i organiser joo xam fu mu toll waaye xaw ma fu mu toll waaye li mën a xew daal mooy li ma gis ñu di ko def ci ñeneen ñi gisuma ñu def ko fii te sëñ Tuubaa ñëpp la ñëpp ñëpp ñëpp la yilif sëñ Tuubaa ñëpp na ci suufam waaw kon nag euh, nañu def sensibilité maanaam atte ak luwaat nii la lëg si luy la loi amul kenn koo xam ne ni nekk koy jox ki jox lii jox jox kii lii mu mel ne moo ko yeyoo nga xañ kii lii mu mel ne yeyoowu ko loolu daal man man rafetlu ma ko yàgg na ko fi ma si sant président communauté yi itam man gisuma cant ga waaw lépp luñ ma sa man de maa ngi nii tey jii sama duusi kër yee day fi mu nii sama duusi kër man fi mu toll nii gan ñi ci boppam ñoo ñëw gas ay pax waaw ngir di jot di euh, xayta man di ko fa delloo ngir bëgg koo suul te loolu jaaduwul ndax gisuma fi wenn xew woo xam ne du doo dañ cee taxaw waaw te gisuma man gisuma ku pomp sama kër ren gisuma ku fa manqub duus gisuma fa lenn waaw wax dëgg yàlla loolu nag man xaw ma ci dara waaye gisuma ko waaw waaw léegi nag ñuy nuyu ñëpp di gërëm ñëpp man kii sànniwuma xeer de damaa wax dëgg man sànniwuma xeer sànni xeer ak yooyu man tàyyi naa ko waaye li ma xam daal mooy nañu communauté rurale bi gën a intégré dëgg la nag ray mbaam am mbaam rey mbaam taxuta bari mbaam waaw bu dëkk bi tolloo fii itam kenn ñu bari jox leen seen bopp itam nañ xam ne am nañ ñu ñu yilif te defaluñ leen waaw defal naa kii rek kële moom maanaam yër na ko ba yër na ko ba bu ma defalee kii du waratumaa defal kële loolu erreur la boo defalee képp koo xam ne booy fay taxi da koy fayu rek boo ko waree defal na nga ko loolu nag rek moo am laa amoon ci lu may jàllale ci turu famille sëñ Modou Faty Khary Mbacké ñu ngi leen di sant bu baax daal te di leen gërëm tey ñaan yàlla sun borom tabaraka wa taala mu nangul nu jaamu yàlla gii nu nga xam ne ci la nekk ci woo weer wi tëggal nu seytaane bañ mottali ko ñu ngi ñaan nit lu waay bëgg yàlla na la ko yàlla defal lépp loo xam ne nit ki ragal na koy yàlla nag ko yàlla fànqal nit yi jàmm la nu waaye teewul ko connecté nag ba xam le xew ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan soon borom tabaraka wa taala mu réewum senegal bi mu def ci jàmm dolli ci jàmm bu baax a baax ñii ñuy wax ñu naan ay terroriste la ñun yàlla leen yàlla xeer feneen yàlla leen yàlla xeer feneen am na nag lu nu wóor lu wóor am na lu ma wóor sëñ Tuubaa ñaan koo xam ne wóor na ma wóor yàlla ne moom ba mu lottalee terroriste yi du tey képp ko yaakaar sëñ Tuubaa waroo am sa xel yaar ci yooyu képp ku yàq rek la ngay yàq bu jógee sa ñëpp laat noonu na ku fi war a indiw ay ay woowee bu ñëwee du la mooy kon nag yal yàlla musal Sénégal yal na Sénégal yàlla leen yàlla boole ba boole xol yi Daaru Karim nag am nañ kontante bu baax ci benn jullit yi am nañ ci kontante trop ndax jullit yëpp léegi benn bopp lañu kenn daawul nangoo fekkee kenn waaye Cheikh Seydil Muxtaar Mbacké xalifatul am li taifatil muridi ayyadahu llahu wa nasarahu yàllaa ko jox ndam ci loolu ba mu ne bu ma kenn neeti ta tijaan ba bu ma kenn neeti murid ba bu ma kenn neeti xaadir ba na ma niñ ma wax jullit ya jullit yooye nañ àndoo nekk benn na li Sénégal mel kenn ku ne di di di di sikkal sa morom ba tax mënuñoo ànd julli mënuñoo ànd sëlmal loolee sëñ Seex Seydil sa sëtu sañ Tuubaa bii bu ànd ak ñaan nga yàlla jox na ko ji ndam loolu nag daaru karim a ngi koy rafetlu te fas yéene duñ yàq fenn lan jullit yëpp la ñu nawloo sant nañ ñëpp ndax tey jii kër Seydi Aj Malick Sy ah, ak kër euh, Limaamu Laay ak kër sëñ Ceneba ak kër Seex Amala ak waa Madina Gunaas waa Ceneba waa Seex Seex Sadibu ñoom ñëpp ñëw nañ fi tey te kenn ku fi ñëw ku ne doxal nga li nga war a doxal kon nag benn jullit yi Daaru Karim mi ngi koy bëggee bu baax a baax ci ñaan yàlla mu jàppale ci nit ñi ndax am nañ ci ndam bu yàgg ba léegi parce que léegi man nekk naa foo xam ne ña fa nekk ay naar lañu waaye dañ daan dégg euh, wuuteeg senegal ci wàllu woor ak wàllu kii waaye bi ñu umee ren ñoom ñëpp ñu umanoo dégg naa naar bu koy wax moroom ne ko Sénégal sax réconcilier nañu kon gannaaw ñëpp réconcilier ñu dañoo war a réconcilier te conciliation boobu nag satisfaction la ci Daaru Karim am ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sat ñëpp di ñaan yàlla yàlla yoon bi yàlla ba mu nekk suñ mujjug yoon yàlla na yàlla taasu ci barke barke Sëriñ tubaa ba xeer nu ci lépp li nga xam ne bu ñu ko defee am ca ndam yàlla na nu yàlla dimbali barke bi Sëriñ Tuubaa Mbàkke tënkal nu seytaane ba lépp loo xam ne ñuy yàdd yàlla bu ñu ko jëfee barke Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. li ñu wax léegi daf maa concerné sëriñ Mamadou lii daali ak Cheikh Abdoulaye di sama ñaari rakk li ñu wax mu na ma ndax man dëkk bi rek laa am képp kuy woyefal dëkk bi wala nga di ko saboté mënoon na maa bañ a wax sax ndax bi mu nga waxee rek sama xol sedd na dadi nag euh, la sëñ Fàllu waxoon laay wax dama naan galas ndax sama kilifaa ngi nii toog sama rakk nga nee toog samay rakk ngi nii gone yi nag maa ngi leen sant baax di leen gërëm ndax li ma leen di sant di leen gërëm yëf yi xamuma ci dara te yéen a ngi doxal lépp seen kër bàyyi seen kër maama fexe leen ba lépp sotti ngeen di wax di def di jottali ndax su suñ borom ndogal yéen nooy seeni kilifa Serigne Cheikh Mbacke ngi nii ci biir waaye Cheikh Mamadou Fadal mu ngi nii toog mooy say Cheikh kàdd yi ma ci sànni dara dadi rek ministre euh, président de la république dafay am ay xarit ci li wax fanaan na sama kër ñetti weer di déeyoog man kon nag lii sa yëpp laat wax bu fekkee loolu am na nii loolu am la xam nga lii sa yëpp laat wax loolu am na ba noppi mi président de la république même bu fekkee xanaa moom sax bu fekkente ne bu la xam la waxantuma laa mu ñëw fi sama kër gi ñetti yoon nuyu kilifa yi ñëw sama kër ga ci Tuubaa muy ñeenti yoon nuy déeyoo ci yenn bi dëkk bi mel nii loolu moom moom ci boppam du sagam lim doon doon doon sama xarit du sagam li sëyëb laa wax wax ak gone yi wax leen ci dëkk bi te bàyyi weewaa jigéen di def naandoo dana baax ak dana def li dana la laata du leen ko def sama kàddu yii nag boo demee ne ko sëriñ seex Mbacke kam jox kàddu buy xalif gannaawam ak porte parole ba man miñ nëpp xaritam laa man miñ nëpp xaritam laa maa ci sof loolu ne ko weewaa ji soof nanu weewaa ji sàppi nanu dégg nga nañ fexe ba ñuulal suñu woon wii ndax bu fekkente ne ndeet ñoom couleur lañ man maa ko wax ne ko président de la république bu daa ma ne ko baat bu ngeen yor réew mi fàtte na mu reene ma déedéet fii maa ngi message ba léegi te at mu ne ngeen yow wax lii def lee wax lii wax def lee mu ngi nuy bëgg a soof defar leen yoon wi te bàyyi caaxaan yi ay citoyen lañ ay sénégalais lañu Macky Sall nee ko sëñ Basiiru Mbàkke sa xarit barki dem bi sama ndey faatoo woo na ma téléphone direct loolu moom beneen affaire la waaye wax ko ne ko Macky Basiiru Mbàkke sa xarit ba nekk Daaru Karim nga daan faraan këram ba dara doonagul dara nee na dëkku baayam bii ak magam yii ak rakam yii ngeen defar dëkk bi weewaa ji soof nanu maa ko wax direct li porte parole bi wax maa ko wax comme nee ñu maay ab xaritam ma sàng sama dar ndax bu yéen a yobalalee ab ministre mu ñëw kañ la fi ay ministre commencé ñëw ca sëñ bi wax na ko ca Souleymane Ndéné jaay boobu mooy premier ministre ñëw na fi Mamadou Diop Decroix ñëw na fi di suñu mbokk ku ne wax bu ngeen ñëwee wax dem bu ngeen ñëwee wax dem bu ngeen ñëwee wax dem bàyyi leen loolu te defar dëkk bi te bàyyi discrimination yeeg yëf yeeg yéewaat yi li xew lépp nag xam nañu ko waaye sëñ na ko dun xeex dun xuloo waaye mën nañu wax xam nañu xuloo ndax dëkk bii Euh, am na ci loo xam ne lii suñ bàyyi ko ñu kaam ñëpp nañ bàyyi wee waaje te defar dëkk bi ndax dëkk bi rek la ku defaru dëkk bi nag pour nga am na du yomb ndax fii rek la nam gone yi ñu ngi nii yor lépp man xawma ci dara mais nag day ñëw fi man comme day ñëw fi man nag foog nga wax ko loolu rek laa ci amoon lu may wax asalaamaaleykum ñi ngi ñëw fii président Macky Sall ñu ñëw fii nga xam ni que ci koy wax laylatul ngi fi ñëw ànd ak délégation bu mag ànd ak Isma Dioum di ministre conseiller ànd ak Abdou Aziz Diop di ministre conseiller ànd ak Fallou Fall ambassadeur ànd ak Mourou Fall Naydé au conseil des collectivités territoriales ànd ak préfet ñu ngi ñëw nag indi suñu nuyoo di nuyu kilifa diine yi fii nekk yëpp sëñ Fallou Mbacke sëñ Bassirou Mbacke sëñ Abdou Lahad Mbacke sëñ Baara Mbacke sëñ Modou Khari Mbacke toute la famille de sëñ Modou Khari Mbacke ñëpp ñu ngi leen fii ñu ngi leen di nuyu di leen jox suñu nuyoo di ko dox Serigne Cheikh nga xam ni mooy xalifa kër gi mu tegal ñu ko ci xalif xalif bi xalif général des Mourides sii Sidi Maxtaar Mbàkke yàlla na fi yàgg te bis bi nag bis bu tedd la moo tax ñu ñëw fii président wax ñu ñëw représenté ko fi dégg nañu nag li ngeen fi wax yëpp man maa ngi fi doog ñëw bu ma ñëwee li ngeen fi wax yëpp dégg nañ ko mooy doléance mooy tali bi deux kilomètres cinq ak dispensaire bi moom ngeen fi wax loolu yëpp dinañ ko jël egg ko président wax ko ni sa xarit fi nga xam ne da nga fi daan ñëw ba dara dul dara di fa fanaan lii ñor na leen trop ci dëkk bi te li ngeen wax tim jaadu na war ngeen ko am parce que euh, dañuy wax ni kilifa murit dañu bëgg ay sañ-sañcaat à bu ñu kiyee bu ñu tàggatee seen doom ba mu am kii du ñu bëgg a dëkk ak seen doom dañ naan ko demal sañ ci fële nga nekk yooyu yëpp dëkk yooyu yëpp nag dafa war a tali war na fa ñëw courant war fa ñëw kii war fa ñëw parce que kilifa mu di dëkk moom rek fu mu dëkk rek taalibe yi dañuy ñëw mu doon dëkk mu doon quartier mu doon lépp loolu yëpp je que président Macky Sall bi fi ñëwee ba léegi mu ngi commencé liggéey te nag bëgg-bëggu nit ñi dafa bari il faut ñu def yëpp ndànk-ndànk fii am ngeen ci wàll am ngeen ci wàll dañu def tout pour def ko seen meer ñëw ne léegi maa ngi koy nuyu ñëw ne léegi maire Touba ñëw na léegi maa ngi koy nuyu am na yoo xam ne ci moom la aju dinañ ci waxtaan dañ ci mën a jàpp aussi ñu jàpp ko parce que tali du mairie moo ko mën def tali dafa cher un kilomètre de route rek c'est trois cent millions yenn saa yi dañ koy xeeb di wax deux kilomètres cinq cent mais un kilomètre de route c'est trois cent millions de seen deux kilomètres cinq cent yi multiplié par trois cent millions day nekk lu takk loo xam ni budget mairie attanu ko état bi moo ko mën def moom xam naa dina ci taxaw parce que dégg na ko parce que mi ngi fii dispensaire moom mën na ko def donc vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni président ñoo fi yónni moo ñu fi yónni woon di leen sàkku ñaan pour dëkk bi mu dal di leen sàkku ñaan aussi ci élection yi nga xam ne ñu ngi ci jëm ñu def ko ci jàmm génn ceeg jàmm te dëkk bi nga xam ni que yàlla moo ko jox mu ngi ko jox ko président Macky Sall yan bi ñu ko yan yan ci moom mu am programme bu liggéey Sénégal programme boobu nag ñu ñu koy ñaanal mu eggale ko jàmm ak salaam ndax bu eggee ñun ñëpp dañ ci gis seen bopp parce que moom bala moo jël réew mi daf ko wër nekk ko rek bureau toog dafa wër réew mi wax ak nit ñi laaj leen lan ngeen bëgg bu ko waxee lan la ñu bëgg mu tëgg li ñuy wax PSE nga xam ne PSE programme la nga xam ne vision moo ko moo ko moo ko moo ko jàkk ba pare ñu décliner ko en action action yooyu yëpp mu def mu def ko ay programme mu def PUDC mu def Promoville mu def ci loo xam ne yëpp dañ kii parce que vraiment Ila Touba mi ngi fi bi mu jëkkee ñëw def na assainissement Touba def na ci lu bari bi mu paree mu def Ila Touba Ila Touba 113 kilomètres la yi nga xam ni war na jóge ba Thiès ñëw ba Touba te mi ci liggéey Daaru Karim bi Daaru Karim bi ngeen wax 2 kilomètres 500 loolu yomb na dinañ ci taxaw dinañ ci taxaw ñu def ko rapidement parce que jaaru na aussi ngeen am ko parce que dëkk dëkkaat yu dëkk dëkk dëkkaat la boo xam ne yàgg na trop Sëñ Touba moo ko santaane woon moo ko santaane woon. ah doom kii doom moo ko santaane woon sëñ Mansour Mbacké mu léegi nga xam ni que moom amul woon temps def ko parce que mi ngi woon ci liggéeyu xaalis bi comme ñëw na ba sanc ko nii ñëpp dañ ci war a góorgóorlu pour que yéen ñëpp ngeen ji ci seen bopp te xam naa ne man ba ma demee boo ko ko waxee maa ngi ñaan liggéey bi ñu def ko ci ci ci li ma koy wax parce que xam naa ne lu ma ko mës a wax rek da koy def yàlla na ndam boo may faral am ci moom yàlla na ma yàlla may ndam moo ko waxee ñu balaa déwén ñu fi ñëwaat ñu def ko ak jàmm ak saam yéen ñëpp ngeen gis seen bopp ñu def fi yeneen programme def fi sax lu ëpp 2 kilomètres 500 parce que quartier yi war na leen relier ak tali ndox war na ñëw euh, courant war na ñëw lépp war na ñëw maa ngi leen di sant leen gërëm di leen ñaan ngeen ñaanal ñu ci bis bu tedd bi ci bis bu màgg bi ci bis bu rëy bi ngeen ñaanal Sénégal mu am jàmm ngeen ñaanal aussi président la République Macky Sall ndax moo ko jiite ndax moom amul jàmm rek Sénégal mënut a am jàmm parce que moom mooy jëli ci ci ci ci bitim réew moom mooy jëli dajale alal bi nga xam ne moo nekk ci réew mi pour di ko séddale pour ñëpp am ci donc buñ ko ñaanalee jàmm rek xëy na jàmm dina am ci Sénégal te xam naa ni yéen sëti sëñ Touba bu ngeen ñaanee Mbàkke Mbàkke yëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ñu ñaanal président yéen bi oyof ci moom ba pare fi mu bëgg a jëlee fi mu bëgg yóbbu Sénégal mu yóbbu ko fa ci jàmm ak salaam wasalaam maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal di ñaan fii nga xam ne daje nañ fi ren déwén nañ fi dajawaat ku nekk fi nga nekkoon nga yokk parce que émergence lañ wax dëkk bi mën na yokk mais ku nekk aussi fa nga nekk nga yokk bu ñuy bu ñuy yokkoo bu bu Séné bu état bi jàppee def dara taalibe yi jàpp def dara bu boobaa bu ñëpp defee dëkk bi dina taxaw te kenn du ci sonn. wasalaam maa ngi leen di sant vraiment di gërëm di ñaanal sëriñ bi vraiment mu yàgg ci suñu kanam yàgg ci kanamu njaboot bi yàgg ci kanamu taalibe yi bi ngeen fi waxee dégg nañ ko doléance yooyu ñun accepté naa parce que dispensaire dispensaire bokk na ci acte 2 acte 2 PSE mooy mooy capital humain dispensaire bokk na ci axe un bi mooy transformation de l'économie tali bokk na ci loolu moo comme da ngeen ko laaj te moom loolu programme am la pour tout le Sénégal xaj ngeen ci ne leen ci xajal wasalaam maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam